mais mais mais mais non juste pour boucler ce chapitre là. Mm -hmm. alors ñu tijji euh, enquête information judiciaire. Mm -hmm. euh, pour euh, leeral euh, mbiru Petrotim bi le dossier a été classé euh, sans suite. Mm -hmm. alors qu'est-ce que vous vous dites tout ça pour ça parce que jàpp nga ne. Euh, dugal nañ la ci engrenage juridique même bu fekkee ne classé nañ ko. Mm-hmm. Euh, est-ce que est-ce que dañ ko defoon juste pour pour tirer d'affaire euh, mm-hmm. pour que ëllëg ñu bañ laa toppee dara. Ah, xam nga ku la neex moom lu la neex ngay interpréter c'est sûr que su may adversaire moom ils ont toujours ils vont toujours penser ce genre de choses mais li am solo mooy man d'abord du boobu yoon rek la ma justice woo. justice njëkk na ma woo sur la base de dénonciation. Euh, yoo xam ne ay homme politique ñoo ko def of nag woo ma parce que considéré naa of nag comme quand même benn instrument ci institution judiciaire yi euh, donte duy def pour poursuite woo na ma def enquête ci man enquête boobu tax na ay équipe dem ba ay États-Unis di vérifier ndax am naa fa alal wala dama fa am lu ma fa denc wala lu ma fa luubal euh, of nag def enquête am ba def rapport ci man ak ci ñeneen ci dossier toujours pétrole bi ba wone ne man amul dara lu ñu may reproché loolu je crois que journalistes yi xam nañ ko mais comme loolu intéressé leen. Euh, li leen intéressé la personne en parlait. non pas du tout. le dossier a été classé sans suite déedéet waxuma dossier boobu dossier OFNAC nag euh, li ñu wax au contraire confusion la indi woon parce que dañ ne Nafi Ngom Keïta dañ ko fay jële peut-être euh, parce que y le dossier Petrotim alors que le rapport a été mené et bouclé par Nafi Ngom Keïta. non Nafi Ngom Keïta Eh non pas que ça. Ah. Euh, boo seetloo bu baax euh, question yëpp lañ jaxase woon comme d'habitude d'ailleurs il euh, y a beaucoup trop de confusion quand on parle des gens qui sont voilà proches du gouvernement donc man am na mm, citoyen la su amee loo xam ne dañ ma koy reprocher damay pare pour dem wuy ji justice de toutes les façons awma choix parce que justice bi moom amuloo choix yaay diw doomu diw rakku diw loolu moom amul Sénégal donc dem naa wuy ji gëstu nañu te gëstuwuñu gëstu caaxaan ndax su fekkee ne man dañ may reprocher am lu ma yor wala lu ma yorul ñu dem banque yi ay ay seede lañ ci fouillé sumay may compte wax ma ba 2012 mais ba 2009 dañu remonté opération financière yépp ci sumay compte au Sénégal jéem a seet sax bitim réew ndax am naa fay compte euh, yàlla baax na ba loolu yëpp bi ñu ko gëstoo gisuñ ci dara loo xam ne mun nañ ma ko reprocher ba pare ñi yëkkati woon wax ji tamit fii ci Sénégal amul kenn koo xamante ni bi ko justice bi wooyee dem na wane lu nuroog lu ma mun a taxal donc loolu rek doy na ma maintenant nag euh, ku nekkul suma ku nekk suma noon wala nekk sama adversaire soo ci waxee leneen dama koy comprendre alors ce tour ñu takkal ko l'histoire ñu rattaché ko à l'histoire en tout cas de l'exploration du pétrole au, au Sénégal mhm. ñu mm dans ta dans ta vie. Mhm. Euh, nga nekk pendant presque six mois. Euh, à la sur une la euh, des des journaux sur la sellette même à même à l'international ay commission d'enquête interna ay ay commission d'enquête yu ñu jéem a mettre à à, à l'international nga quitté te fonctions à la caisse de dépôt quitté woon nu mu la nu la nu mu la neexee. Mhm. après le dossier il est classé sans sans sans suite. Mhm. mais il y toujours possibilité. que ce dossier dossier soit remis euh, sur la table alors est-ce que vous vous sentez libre est-ce que vous avez euh, des inquiétudes ah man awma benn façon inquiétude même booba awma benn façon inquiétude euh, de toutes les façons comme li ma la wax justice moom euh, ci réew amul kenn ku ko mën a rëcc soo ko xalaatee itam da ngay nax sa bopp rek euh, est-ce jàpp nga ne rëcc nga man awma ma bay rëcc xam nga awma benn façon pesanteur buy peser ci man parce que dama deful dara te defe naa ne euh, sunu justice ak même justice internationale xarañ nañ xarañ goo xamante ni su ma defoon dara heure bi suñ ma téyewul tamit dina am lu feeñ luñ ma taqal waaye alhamdulilah bés boo xamante ni dama war a confronter waat à la justice maa ngi ñaan yàlla rek am wér-gu-yaram dund su boobaa tamit euh, dinaa dem confronté waat à la justice loolu awma ci benn façon inquiétude parce que sénégalais la justice bi ak loi bi moo fi nekk nekkal fi yëpp bés bu ma justice damay dem wuyu ko